Ndiaye jërë ngeen jëf jàmm jëy bëgg a jaxasoo ci l'hôpital dalal jàmm bu Géejawaay yéene bu waay xëy dal gis ca ne daloon xibaar bi yëral xët mu njëkk la quotidien professeur Papa ma ne woon président conseil d'administration bu hôpital dalal jàmm bu Géejawaay démissionné na tekki na ndombal tànk la ko takkaloon ne ko xërr seeni borom ca lettre de démission ba xamle na ca la ko tax bàyyi bokk na ci ne hôpital dalal jàmm bu Géejawaay juróomi at moom yoonam moo di benn milliard ak genn wàll gi ñu ne président Macky Sall yëkkati na ko ngir jàppale ko hôpital ba ngir ñu defar ci ñaari taax benn taax mi di ab centre de greffe moelle beneen taax ma ca des di ab centre de procréation médicale assistée professeur Papa dafa jàpp ne guddi yi ñu toll hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay li mu soxla dëgg du loolee rawatina ci jamono ji nga xam ne foo dem ci àdduna bi ku ci nekk yaa ngi seet noo mën a def ba génn ci mi Moussa Sam Daf njiital hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay mel ne ku naan ñu ci l'observateur cuur nan lañu ko mën a fale jox ko mandat mu dem ba nga xam ne ab mandat am fukki fan ak rek moo ca des muy soog a démissionné loolee yanwul maana démission bu professeur Papa Touré ca poste président conseil d'administration bu hôpital Dalal Jàmm journal Source A ay caaxaan la ko jàppee ba teg ci dañuy wax li waral mu jàpp ne professeur Touré dafa bëgg a fowee xelu nit ñi bokk na ci li mu bàyyi ba fukki fan ñaar kott des ci ab mandat muy soog di démissionné président beneen mu di président tribunal bu Podor libération nee nañu jëlee nañu ko fa mu ne woon yóbbu ko kees def ko conseiller li xew dafa mandat dépôt woon benn kilifa diine bu mag ca Podor yàq tooli jàmbur ak di tëkkuwaate loolee la ko yóbbu woon ca yoon dossier ba di dox ba yegg ci taabali président tribunal ba di ngóor jóob ngóor mandat dépôt ko ñu jël jàllale jeel njekk lu nekk ñaan nañu ko intervention yi fu nekk lañ doon bàyyee ko ngir mu bàyyee ko mu bañ ay fan rek la ñu ci teg ñu wàccee ko jële ko tribunal bu Podor yóbbu ko bu kees def ko fa simple conseiller la tribune nañu dafa laal laalaake moo waral ñu yëkkati ko mu di lool union des magistrats du bi ko yëgee si dugg ci rek la ñu bëggoon ndax mer magistrat yi Quotidien mi ngi ñuy wax ne xàll nañu yoon wi nga xam ne jàpp nañu ne bu ñu ca jaaree dinañu mën a def seenub liggéey ci kaw indépendance bu mat sëkk cib élection bu ñu doon amal ci seen biir démb fa la tànnee Souleymane Teliko Aminata Fall Jean Paul Diop ak Abou Dieye ngir ñu teewal leen ci biir conseil supérieur de la magistrature fa la ñu xamlee dégg yu ñu bëgg seppi ci tànku magistrature réew mi ngir di mën def seenub liggéey ni mu waree ku war giléem ba wàcc ko wolof yi nee nañu tukkee ci borob ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar bu ñu ne Senelec da koo yoreel compagnie d'électricité ba démb ci guddi nanguwuñu woon a fay bor bi li yóbbu bor bi ba mu yegg ci ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar fayu ko ci diggante novembre ba ci njeextal weeru sule yeneen fanweeri milliards ñëw dolleeku ci bor bi te boobee ba léegi fayuñu ko leptoo faytoo les économies ngi ñuy wax ne moom Senelec coow li doxoon diggam ak Akilee ba taxoon ñu tegoon loxo ci ay kontam mujj nañoo teggi loxo ca compte ya tribunal du commerce jox na dëgg avocat yu Senelec yi ba santaane ak mainlevée ci ay kontam décompte bu yéeme moo nekk ci xët mu njëkk Vox Populi waa Horizon san frontières ñoo xam le ne ci diirub juróom-ñetti weer yi ñu génn faat nañu ci bitim réew fukki doomi Sénégal ak juróom doomi Sénégal yi ñu faat bitim réew ci réewum Amérique la ñu ëppee ne faat nañu fa juróom-ñetti doomi Sénégal moo ci topp ak ñetti néew dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal 7 indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy télécharger ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saa si ak ci ité bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleeg coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.